bul gis moo moonin bi rek bul gis weccit bi rek xoolal après way bi. waaw way bi. loolu dafa jar a sóoraale xoolal way bi. macha allah dafa jar a sóoraale. lu am solo la dafa jar a sóoraale kon ñi nga xamante ne aussi ñooy suñuy njiit nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax askan bi waaye tey nga dëkk parcelle. Mm-hmm. fan yi mu amoon coow ci ki nga xamante ne mooy aada Fass ak boy parcelle yi yaakaar naa xam nga aada xam nga bu baax ki nga xamante ne aussi moom la takk muy soxnaam soosu noonu coow li am booy parcelles yi booy parcelles yi la Ada Fass jox moto yi ñoom la jaay moto yi ba mu jur coow Fass naka nga jàngatee coow loolu ak lan nga ciy wax sénégalais. waaw maa ngi nuyu waale booy Ada Fass mos nañ daje ma nag moom ma am lu ma koy conseillé su ma xoolee nii dina xam jour boobu noonu ban jour la ak fi ñu daje woon parce que man nag ay magam la ko waa ay vieux jàmmee sàkket xaarim taalibe alaaji bu Fass Fass bëri naa fa ay partenaire mhm. mhm. moom nag booy Mhm. na xoolaat boppam bu baax a baax a baax a baax a baax. Mhm. ndax moment bii moom fi mu tool nii. Mhm. bari woon na ñu fi tolloon ñii dem nañ ñii arrière nañ. wàllu ay jakarta nag yàgg naa dégg gars yi di ko wax si internet bi affaire yooyu Ada Fass dafa ñëw fii jël ay jakarta jox ko ay boy PA nii ak nii parcelle fii Ada bu fi mayee woon jakarta dangay xam booy bii nii jakarta bii mu yor nii. Mhm. Ada moo ko may. Mhm. Ada Fass mayul benn booy PA fii jakarta mhm. amul te booy PA yi xaaruñu sax loolu. ay ànd ak yow pour nga may leen ay jakarta wala nga kii booy PA xamul loolu. booy PA dafa mën a jaayanteel boppam. ñun boo xoolee ci internet bi ñu si wax ñépp ñun ñoo si gën a néew ñuy wax. Mhm. booy parcelle. Mhm. Mhm. xamuñu loolu ay wax yu bëri fii ay kii génn fii wax fii wax fii damay dégg sax ba si yeneen secteurs yi ñu naan bu ñuy bu ñuy bu ñuy wax si problème bi ñu naan Ada Fass dafa jël ay jakarta may ko booy PA. waaw ñuy wax loolu noonu. est-ce que gis nañ benn booy PA bu yor benn jakartaa boo xamante ni leer na leen leer yàlla ni Ada moo ko may booy bii nii. te jakarta yi ñu ko jox sax mayewuñu ko. buñ ko jaayul dañ ko jox ay nit ñuy liggéey di leen verser. ok bi amu ci. maye amu ci. ok. maye. Mhm. amu ci buñ ko jaayul ñenn ñi dañ ko jox seeni booy ñuy liggéey di leen verser mais loolu sattane na. Mhm. ndax bu ñu lay liggéeyal noonu di la verser. waaw versement yooyu boo ko dajalee yeneen booy dinañ am jakarta. Mhm. di nga si mën a di jëndaat ay yeneen jakarta ndànk-ndànk ba boo yëpp am wala ba xaaj bi am. Mhm. Kanta moog Jalla seen diggante nag. Mhm. Jalla jigéen bu baax la. Mhm. booy parcelle la fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee. ñoo ko yar. sunu jarbaat la wala mu nekk sunu raq. Ada gumbawul. te mama moom fi mu tool nii nii mu leer ko jigéen. maanaam jigéen pour mu tëg ko yombul. Mhm. ndax ya yaakaar naa Ada Fass bi mu tool nii fi mu toll nii. Mhm. ku mu fëgg sa gàlle na la soxna laa bëgg. donc ubbi. comme bu demee ba taamu jala takk jala. Mhm. ci gaawaay comme jala am na lu mu wan Ada Fass ba mu doy Ada mu jël ko comme soxna. vie privée doomu aadama nag. dafa bokkul ak affaire làmb wala ay affaire u bëre. Uh-huh, uh-huh. doomu aadama nañ bàyyi loolu. Uh-huh. Ada bu ko neexee mun na ñeenti jabar. mais lenn rek laa koy wax. kenn du root siwo di sotti paan. waaw. moom conseil boobu laa koy wax booy kenn du root siwo di sa ñaari soxna yi yàlla na la yàlla booleeg ñoom. amiin nga ànd ak ñoom ba ilaa abat mhm. am si ay doom yu barke mais say entraînement bu doon diis nga doon def yokk ko ba vingt te xam ne dafa am ñu la gëm te ñi la gëm tamit nga gëm leen mhm. du ma ne faas kase mhm. waaw yow booy booy lay supporté dañoo bëri booy nante yi la bëgg di la supporté dañoo bëri du faas kase del bàyyi xel booy yooyu noonu ngay toog say tànk bu baax a baax te xam ne nag sa soxna boobu noonu bu la kenn takkale ak moom soxna su baax lañ la may jala booy peyaa la parcelle fii la juddoo fii la yaroo. te pour man booy booy parcelle yëpp laa du jala kase moom ak ay moromam ñoom ñëpp ay booy yu mool ñoo fi nekk yu baax. jabar nga am teesi bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw te di la wax tam benn affaire danga nga dugg parcelle. am fi soxna avant soxna bi dafa am lu jiitu da nga jël sos sa diggante yow ak Zos yàlla na lay Zos daan jël bu rëy parce que ñun parcelle moo ñu ñor. sa diggante yow ak jala yàlla na ko yàlla dëgëral ba ngeen di maamaati maam. Mm-hmm. après nag lu weesu sa diggante yow ak Zos bu la Zos daanee ba pare. leneen loo nekk ñun ñoo ngi si. ndax ah. bokk nga si ñun ba pare quoi. Uh-huh. naka nga gisee démb sortir bi mu def nangu ne moom dafa juum jéggalu waa Fass jéggalu ñi nga xamante ne aussi ñoo di ay xaritam moom Ada Fass. da koo yéex def. Mm-hmm. ba coow li amee ba mu nalawee ba yeew la ko waroon def mais tamit xam naa ak problème yi ku nekk woo la fii aada nii aada nii aada nii erreur mënut a ñàkk si ñuy ànd. erreur mënut a ñàkk si ñuy ànd nit day bokk nit ndey bàyyi des fois erreur dox seen diggante seen biir gàll ñu ñaawoo. gis nañ fi ay kuray magam gis fi kuray rakam. loolu erreur la woon benn action bu ndaw la woon bu doon jàll ñàkk déggoo. mais chaque jour que sa fee tamit moom booy la booy ay moromam lañ nay waxtaan ak booy bu baax a baax a baax. Mhm. jégalu booy ndax booy ñooy yow te yow yaay ñoom. Mhm. Mhm. waaw di la conseil tamit benn affaire quoi tamit booy booy nga yaa ngi si làmb ji li ma lay xamal mooy làmb ji boo si bëggee dara dangay ngay lolu. mbër day lolu. même sax nit xanaa sax boo loluwul di njaabal di njaabal di njaabal ba am ñaari soxna xanaa di nga lolu. waaw lolul gaayen soirée yenn bëre di la yóbbu ay sama gaayen la kii sama waay la damay ànd ak moom soirée wala ay kii sama jabar laa àndaloon soirée non non mbër day lolu màgg daan. Hmm. fii champion yi nga fi gis fii nii yëpp seen ndaw foowuñu ko. dañ ko meññee ba nekk champion bu mag après lépp luñ mu dund ñu dund ko yow booy bu ndaw nga. Hmm. làmba ngi sa kanam fii ak 5 ans mhm. bu la neexee mun nga bàyyi bëre te dangay am lépp si làmb si kaw nga gëm ko bëgg ko. Mm. mais ni ngay doxee mbër du doxee noonu. mbër du doxee noonu. mbër du doxee noonu booy nga. Mhm. gars yi tamit damay dëgg ñu naan Ada Fass ñàkk conseil wala ay kii nit kenn du ànd ak moom te du ko wax dëgg gars dañ koy wax dëgg amaana moom moo dul dégg dëgg yi wala moo ko dul jëfee. Mhm. parce que bu àndoon ak cent personnes lu mu bon bon bon bon dina am dix personnes yu koy wax dëgg. waaw ah, ci mais kay moom problème bi mooy moom te man xam naa ay magam yoo xamante ni dañ koy wax dëgg te ñoon du ñu ay seer xam nañ dawal bi lépp. Mhm. comme moom man la sumaay moom moo nakaree waxal. wala ah. moom moo dul jëfee ni koy waxee. ni koy waxee. te ñooñu di la wax nag wax yi nga xamante ni doo ko jëfee. Mhm. wax yooyu noonu bi boo noonu nga ciy dox. di ko jëfe boo bëggee avancer dem sa yoon. fii man la su ma làmb ñaari defet ñetti defet boo ko teglee senegal da euh, euh, supporté wuñu xamuñu duñu ay sportif de. Sénégal sportif bëriwu fi. kuy daan la ñuy àndal. ñi fi sportif bariwul boo daanoo daanuwaat daanuwaat da ngay gis ñi la doon kamb ñi la doon aj Mm-hmm. ñoo lay wàcce waat ba nga tuuti beneen booy bu ndaw juddu sa wet mm-hmm. ñu wéeru si moom loolu la rek yow avant yow am na woon na ñeneen mm-hmm. ay booy anti bu faas waaw booy boobu dàkkoo ko bëre sutoo ko xam nga nu mu la ëppoo ko fit mais gis nga nu mu demee boo jëlee defet jëlaat defet rek gars yi dañuy écarté wu. Mhm. mooy loolu mhm. di la conseil sa diggante yaag jala nag. Mhm. nga téye bu baax a baax jala sunu rakk la jala xale bu baax la li ñuy wax si moom amul. ay nitu milieu la loolu amul. loolu man mun naa ko seede. am na yoo xamante ni gis nga gaayen kenn du ko nomeel doomu aadama te amoo lu la si leer. mais milieu sax loolu yàqul dara parce que jigéen mën nga ko fekk ci bërëb bu bon sax wala muy naan sàngara. nga gis lu baax ci moom jëlee ko fa. def ko sa soxna. yàlla may leen njaboot bu baax loolu dëgg la mais des fois gars yi dañuy jaawale gis nga temps dafa bëri ñu mën a nand nandulu te nanduñu. waaw waaw dañuy dégg benn kàllaama di ko joobee te xamuñu kàllaama boobu noonu lu muy firi. Uh-huh. xam nga tey nitu millier am na ñoo xamante ni dañ lay gis ne la nitu millier nga te xamuñu nitu millier lu muy firi. Uh-huh. xamuñu millier nitu millier mooy koo xamante ni dafa nekk ci millier. Uh-huh. milieu nag dafa yaatu bu dee jigéen bu ñu la tuddee nitu millier mooy jigéen boo xamante ni man la sumaay dafa nekk si milieu bi di jaay boppam. Mhm. mais da gis man jala lu ma ko xamee mooy dem suwaare waaw te soirée ñu ko mag sax ak ñu ko gën a nekk xale dañ koy dem. mais ay kilifa ñu fi deqal ndombal tàng sax dañu fay dem. <laughs> jeex na te moom ñoom lu si ëpp soirée naajo la ñuy dem. Mhm. te booy naajo booy peyaa la fii la dëkk. parcelle dëgg la. fu mu dóor. ñoom war nañ ko mun a dooleel. Mhm. ñun ñëpp dañ fa war a teew sax bu dee dëgg. ci lu ñeneen ñoo fay teew. Mhm. nañ bàyyi loolu. wala bu ñu la gisee nga sex benn cigarette affaire yooyu noonu rek ñu ne kii dafa bon wala affaire yooyu noonu yooyu amul. Mhm. Ada du xale. bu demee ba bàyyi léppam takk jala jala am na lum ko wan lu leer a leer leer leer moo tax mu takk ko. macha allah ndax Ada juddoowul sax secteur u ngaaka. non non non Fass ay ngaaka dëkkuñu fa. Fass gars yi dañ doon bàyyi lépp di fa dugg kër Papa Jean ñu xam Fass dëgg xam nañ fa may wax kër Papa Jean nante yi dañ fa doon fees dell aada ci biir nante yi la juddoo du seer du seer waaw woo boobu nag bu doon ku bon wala mu nekk ku yaafus wala ku ñàkk fulla ñàkk fayda mhm. comme aada du ko takk mhm. waaw macha